sama waa ji mu ngi nii peñuwaar bi la ma may. tey sama waa ji. ngi nii. sama waa ji. mais namm naa la. maa la raw fuuf nag. ci loo nekk. macha allah bàyyi di la bàyyi nga nuyu ñëpp nga nuyu waa jàmm ga ñëpp. loolu dina ma neex lool waaye balaa ma nuyoo man moom yaa ma gën a xam. <laughs> cin luy baax la ruq bu sedd amu fi. maa la may kontaan ci Pape Pape Diop mu dugg. léegi génn. Mm-hmm. ndaanaan la. Mm-hmm. Mm-hmm. nuyu naa ko bu baax bala may nuyu gars yi comme moo fi mujj. macha allah. waaye nag man ak moom tey il faut ñu joxante man ak moom benn mais benn rek laa koy dóor après dina ma tontu dama ko dégg mu ni mbër buñ ko dóoree mu daanu da koy indi ak ragal da koy tax a ragal. ma ne ko bañ naa boobu. ba tey li ma la ko wax moom rek amateur yi nuy wax. dëgg la loolu laa. te ki ma koy te te ki ma te ma ko te ki nga xam ne li tax ma bañ ko mm-hmm. ki moom bis bi tey jii ci laa koy joxe leçon muy Modou mm-hmm. daan bi nga xamante ne sii ni moom la ko Balla Gaye de daan fala ab jël la yam te bu mu dikkee daa def lu rëy kon mbër buñ la dóoree nga ragal rek dafa fekk boobu amoo ay mbokk wala boobu ragal gu judd ci yow. ah man foofu itam man ma def yëfu amateur de. nangu naa laa àndal. lu tax Modou Lo bu ko Balla Gaye njëkkee daan. bu muy bëri waat ak Baye mu ñoon ku ne xam na ni Modou Lo lu mu sóor ci Baye mu ñoon keroog dafa bëri dafa bëri la mu sóor ci Baye ma ñoon moo bari maay ma wax la nag la mu sóor ci Baye ma ñoon moo tax mu daan Baye ma ñoon parce que loolu moo taxoon ñu indi ko ci làmb ji dafa jóge ci defet ñëw ñu ne ko lii moo lay may ndam ku xam Modou Lo xam ne ragalul ab xeex Modou Lo ragalul ab rayante Modou Lo fu ñëwee ci làmb day jekk mais làmb da ñëw pour daan ñëwoo ci làmb pour rayante laaju nu ko dóor ah. danoo daan mhm. laajuñu kan moo dóor ci làmb ji danoo laaj kan moo daan ci làmb ji Modou Lo ñëwul woon pour dóor dafa ñëw pour daanante. Mm. mais ñëwul ci làmb ji pour ñëw ci làmb ji dóor bay bëgg a dee gémmañ nga den benn bëñ ba den ñu naan ay Modou Lo daa dóor bay bëgg a den koo dóor mu dafa ñëw pour daan si kon daan na looloo ko indi woon ci làmb ji. Mm-hmm. Modou daana ko indi woon daan na. Mm-hmm. maa ngi nuyu waa Sénégal. Mm-hmm. di nuyu sama mbokk yëpp. kon mais mais ci foofu kon da nga jàpp Modou Lo ragalul woon Baye Mandione dama la ne indi lu koy may ndam. est Modou Lo ba ko Balla Gaye de daanee Modou Lo dafa ñëw jël Baye Mandione te bi muy jël Baye Mandione ti Baye Mandione mu dëgër bopp ma la jël Modou Lo Baye Mandione mu dëgër bopp ma la jël xam nga Baye Mandione daam Baye Mandione mu dëgër bopp muy Baye Mandione mu konkorong ma Baye Mandione mu ës ma mhm. bi mu koy jël dafa fekk Baye Mandione nekk ci ak taxawaayu làmb mën a daan ku mu jël ko te ba mu koy jël Baye Mandione préparé na ko préparé goo xamante ni si mënoon naa daan keneen ku dul Modou Lo Modou moo gën a métti kay ay dóor parce que Baye Mandione dóor na ko ba ba mu fa jógee faar yi am na problème. mais jël bu ñaaw wala defet bokkut bokkut tak ba léegi dóor bu daanu. Papa Diop dóor ko non Papa Diop dóor ko dóor mu daanu la wax mu daanu mënta weesu noonu dóor mu daanu ak nu jàpp sa ngéem mu ñëkk ci ginnaaw comme ni ko Balla Gaye doo def yëkk yëkkati ba sa ñaari tànk def nii comme soppi laay waat di soppi. Mm-hmm. man na nga dóor ma dugal ma ci teen moo ma gënal boobu gis nga mbër yu bëri jóge nañ ci làmb may mbër yu bëri jóge nañ ci defet ah li ma lay wax nii mbër yu bëri jóge nañ ci defet am problème defet moo naqaree maîtriser du dóor mu daanu kase de ñaar boo amee defet te amoo ay mbokk amoo ñu la conseiller amoo der bu dëgër amoo làmb gu baax ci sa ginnaaw da am na mbër yu tegale ay defet tegale ay defet te ñàkk ginnaaw moo leen ko tegal parce que loolu day nekk ci seen bopp bi mutloo daa bokk ci mbër yoo xamante ni bu addu bi du soufflé du xalaat ndey du xalaat bàyyi du xalaat kenn lu dul waa parcelle waxu yuuxu yi ni ko daan nga ko rey nga waajur Hmm. mais mais mais dur mu daan yow jàpp nga ni mbër du la ci combat bi. dégg loo dégg dama la ni du dóor mu daanu de defet moo naqaree effacé. Hmm. defet moo naqaree effacé mbër yu bëri bopp bu ñu effacé defet lan amul. Hmm. jóge ci defet dem daan yi dem bëriwaat loolu moo gën a métti ak bëri revanche. ñaari yi gën a métti ci mbër mooy bëri revanche ak jóge ci defet dem bëri jiwaat xare jiwaat. ñaar yooyu ñoo gën a métti ci mbër. ñaar yooyu dama lay mooy ñaari yi gën a métti ci mbër. mooy nga jóge ci defet ak ngay jël revanche ku la daanoon nga war a bëriwaat ak moom loolu moo gën a metti ci mbër. da nga ma mës a fi wax benn wax bu doy waar nga ne ma. Sénégal xaw ma. waaw Balla xaw ma lan waaye Modou Lo mooy lem. loolu waxaat ma wax boobu nga leeral ma. dama lay ñëwaat taata daa dañoo pare daaw nga may ma benn baat rek ma daal lay wax benn de parce que daa am fu ma jógee am samay rakk yu nekk foofu Sénégal am samay xarit am samay doom. man dëkk yoof nekk yoof waa yoof ma di leen dégg man li ma lay wax nii de spécial bu mu fi mënti di doon bu mu fi teg muy spécial man koo ma mënti di jox spécial bi baax na mais spécial bi ma gën a bëgg a dencal sama bopp man dencal ko amateur yi mooy spécial CNG kooku loolu dinañ ci dem dinaa leen cax benn affaire rek lool dina dinañ ci dem mhm. mais dinaa leen ci jund tuuti mhm. bala may bëgg a dee mbëri naan CNG bi daggoon dañuy dagg dañuy dagg dañuy dagg loolu ma a metti ci àddina bi yéen Alioune Sarr dagg na ba dagg seen xanaa jumbux kay te dagg na jumbux yi dina leen wutal ay njulli nag te bu leen wutalee yéen a njulli xam ngeen la ca topp am na lu muy bëgg a dagg maa wi ma maa ngi sant waa yoof di nuyu waa yoof di leen gërëm di nuyu sama mag Abdou di nuyu sama doom nag sama taaw bu góor bi muy Modou jax moo ja sama taaw la mooy sama taaw bu góor di nuyu waa écrit yoof yëpp di ci jiital nag Malick Niang mi nga xamante ni sii nii mooy sunu lépp nga xamante ni mooy magu xale yi mu doon daanaan lool nee naa ko yow bu écorché wul sa benn loxo bi du too bëree il faut Alioune Sarr écorché sa benn loxo bi ndaxte moom nee naa ko baañ wàññil dóor Malick maa ni wàññil dóor li daloon waa ji di xeex midi te midi la doon xeex nu dóor ko mu naan waa ji génnal lëndëm gi te midi la doon xeex looloo dal Malick ñaar euh, te midi la doon xeex waa ji dóor ko ci kanam mu naan ko génnal lëndëm gi nu xeex mais Malick maa ngi koy nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu sama booy yi di nuyu gin ak ñi nga xamante ni ñooy écrit yoof képp di nooyu booy caatu yoof mi nga xamante ni sama booy la donc di leen a jàmm di nuyu nag sama booy bi nga xam ne moo nekk ngor nu naan ko sitta bu ngor waa Ngor yaakaar ko loolu mu nekk xale at yi bariwul mais nag ñu ngi mobiliser di def barte waa dëkk bi nee nañ ko yawa maa koy nuyu léegi nag spécial Modou nga ne loo ma waxoon ci Modou Lo ma delloo ci Modou waaye li lay nuyoo ci Modou Lo di la ko jikkox ci Modou Lo pour nga jàpp ko mooy ba ngaa xam dara waxoon naa la fi ni la Modou man dama koo seetaan ñetti ati yàlla laa seetaan Modou Lo hmm. di ko topp di ko suivre hmm. man maa la waxoon fii nii la Modou nga naa ah, ma la ne Balla Gaye 2 ab bu avion yi dee bu mbëri dee aéroplan Balla Gaye 2 mooy aéroport bi ku jóg ci moom ngay yam te ngay tàbbi ci moom ngay tàbbi ma la ne Modou Lo bëgg a saf suukar waaye lem la ma tegalaata benn mbir ni la mm-hmm. dafa nekk mbër moo xam ne foog ñu jàpp ni Modou Lo kéemaanug yàlla la Modou Lo yàlla la kéemaanug yàlla la mm-hmm. ndax Modou dafa am lu bari loo xam ne daf ko fekk ci làmb ji mm-hmm. weddi ko mag ñi daan ko fi teg mu doonoon baat boo xam ne ñëpp saxal nañ ko ni ñu mbër day gudd rëy. Mhm. fii ak na ngay laaj ñaan ana mbër ma kooku sa mbër des na. Mhm. Modou Lo dikk. Mhm. daal ni gudduma rëyuma weddi waxi mag ña Modou Lo mbër mu njëkk a weddi waxi mag ña la. mooy gudduma rëyuma waaye sama bopp bii ci lay nax kaañi. doon koo xamante ni nag ma la ni buzz nga la mën ni Modou Lo day ndaanaanu ndaanaan yi te ndaanaan ci Modou Lo la ñuy naanee. Hmm? ndax man dama koo seetaan ba pat ñetti at yàlla laa ko seetaan ba pat benn defet moo am bu leer dinañ ci ñëw ci biir maneen defet ba ca des nit ñi di ko boobu du ab defet man maa ngi ñu ngi ci biir dinañ ko ñëw indi ci biir émission dama la ni Modou Lo ñetti at yi ma ko seetaan ba pat coow yi di bari di bari di bari di bari man Mourtala Sène benn defet la Modou Lo am boo xam ne bu leer naan la te man mii maa gém bu ma ko daan mu daan ko hmm. Modou Lo man lu ma lay wax day leer man waxi jàmbur lu ma ko nettali samay wax laay nettali hmm. man maa ko fekk yoof mu te ticc kenn mënu koo daan man ma tuxu si yoof mhm. sama monsieur le maire Abdou Naar man moo ma andi yoof di sama mag andi ma fa ma ubbi fa garage ñëw fekk ko yoof muy bëre kenn mënu koo daan kenn mënu koo daan ma ne man jàmm gën laa dëkk te waa jàmm gën ñi mbër yanu fa yore kun mënta daan amul ni maa dem jëli bàyyi góor bu jàmm gën fekk seetaan naa Modou Lo atum yàlla kenn mënu koo daan mu nu ko daan poids léger poids lourd wala ban. waaye yow dégg loolu maa xam ne baax Modou Lo musul hmm. mu doon hmm. bëreel xam nga lan moo gën a sonal waa Sénégal ci Modou benn affaire boo xamante ne si ni bëri ni naan Modou Lo dafa am gàllaaj mais bës dinaa la wax benn affaire ne la gars yi juum ñëpp am gàllaaj amul kenn ko amul galaat ci làmb ji mais Modou Lo dafa nekk benn benn ndaanaan boo xam ne bi muy dugg ci làmb ji li gën a tax Modou am li mu am làmb Modou Lo bi ci làmb benn vague la benn vague vague la Modou Lo dafa am vague boo xam ne lim duggandoo ci làmb kum ci ñamalul ci mbapat mi kum ci ñamalul ci mbapat seetaan nga ko mbapat wala sóor nga ko vague boobu ñoom la Modou Lo àndandoo duggandoo ñoom ci làmb ji li tax mu sonal gars yi ci làmb ji mooy dafa xam gars yi dañ koo xam ci mbapat mi mu xam leen gars ci mbapat mi ma la ni Modou guddul Modou rëyul ma waxaat la ni la fekkoon ne làmb dafa toll ci dañuy taxaw ni gudd rëy la ñuy xool ci làmb ak Modou Lo doon na mbër moo xamante ni guddut rëyut guddul rëyul waaye joomam ak fitam ak faydaam moom la kenn amul ci làmb mhm. image bi nga xamante ni moom la Modou Lo yoroon ci mbapat man ma di ko gis man mu talaam yi Modou Lo bu masaana dugg mbapat billaahi wallaahi wa tallaahi man moo wóos man maa wax loolu bës Modou Lo bu masaana dugg mbapat ku mu bokkul tous du la nuyu su bàkkoo bàkkoom boobu noonu ba daw bi cox loxo yi ba ñëw ak tenteem boobu noonu ku mu bokkul du la nuyu te Modou Lo dafa doon ko te moo waxaat la benn affaire ci li tax Modou di ndaanaan xanaa xamoo yow bës kilo fit kilo fit moo man bërigo tàppet. kilo fit moo man moo man bërigo tàppet. Mm-hmm. daa am fit kon. Modou Lo kilo fit laa la wax moo man bërigo tàppet Modou Lo fitum yore yamal ci làmb joona parce que man Modou lu bëri nañ ci dem ci mbappat yamaliwuma Modou Lo fitam ci làmb dong Modou Lo ba ma ko fekk yoof man mii di waxee parce que waa yoof ñun xam na ni ma yu baax Modou fi tam yamul ci mbapat dong Modou bëri na mbapat man di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba ci ak benn jour mu ñëw fekk ko yoof am na benn doomu ndayam defe naa sax mi ngi ci laay ñu naan ko wëz ci la tudd booy boobu ndaanaanu doomu ndayu Modou Lo la lu ndaw la gudd réew mi moom Modou Lo démb la noonu depuis ci mbapat yi ba léegi mu ñëw fekk Modou Lo muy garder benn similage xuma similage yooyu booy di def mm. muy wax ne ne fit boobu noonu yamale ko ci làmb ji dong te loolu mu doon garder noonu ak bu ko fa boo ma masaane defee ñeneen ñoo ñëw yàq ko mais dañoo jëw jël Moodu ni ko Moodu kaay garder li ma lay wax nii ñu ngi koy dégg bu baax man lu ma lay wax li ñuy def nii dafa neex ñu nag amateurs yi ko def man dama ko namu lool. Mm-hmm. mais man lépp lu ma waxal nit ki ñeme naa mu toog vaar ñeme naa taxaw ci kanamu yàlla ni ko attanu ma ak moom. Mm-hmm. wala mu toog nii nga indi ko ma toog wax ko nii. Mm-hmm. képp ku ma fa waxal sa defi tamit boo ko weddee ma wax la heure bi wax la ko daane bi nga jógee noo def sa kanam gi. yaa ngi dégg noonu ba Modou hmm. Lo bis boobu ba mu dikkee di garde jumelage bi man mii di wax ak yow nii bi ma dikkee dama dikkee ba ma bi ma dikkee ba agsi ci porte bi mu ñu fekk ko mu taxaw fekk man boobu dama doon xam nga ñun tooy dañ daan nand nandul parce que bi nekkee jàmm gu bu bëggee dugg soirée dañuy jékki-jékki bu ñu xoolee ba càgg dañuy wane ni ci biir soirée bi la nekk dañuy def ni suñu rek benn ne danoo tàng fekk duggagul daal di dugg mais bu ma ñëwee bay bëgg fa bu fëgg sama mbubb gis booy bi taxaw ci kaw bunt bi ma ni borom tent bi xàmmee naa ko de kii te xàmmee naa ko man jaamu gën laa leen gis naa ko ci mbapat yi ma daal noppi jënd sama kokaa bu sedd man jënd sama kokaa bu sedd dem ba fee jàkkaarloo mu toog am benn waay boo xam ne nag la jëloon na waay yoo yëpp moom xàmmewul jaan ak joor xam naa xàmmewul muuru moo tax ku tuuti Modou jàngal na waa àddina bi ni leen lu bëri dinaa la ko wax tey si Modou waa ji jékki-jékki rek daal di ñëw ni day forcer bunt bi ay waay waay waay bëcc kooku bu yëgoon di forte bës nag moom bu yëgoon di forte tegal te temps yooyu noonu xam nga ni Yoff ndaanaan dëkku ndaanaan la ndaanaan a fay jaayante te boobu da ba du dara Moodu loo teg fa waaja li ma lay wax nii waa ni ngi may dégg teg fa waaja teg fa waaja loo xamante ni si nii ba mu fa jógee gars yi jékki-jékki ñëw naan ana booy bi mën leen kii du booy moytu leen booy bu ngeen fi moytu booy dina fi gaañ paa kii xam naa ko baax kii booy max wax la ni la kon fitam mu yoree dafa nekk fit boo xamante ne si ni yàlla moo ko def ci moom gis nga bës lu yàlla deful ci nit nit mënu koo def ci boppam te nit mënu koo def ci nit mais Modou Lo lu nekk ci moom ndogalu yàlla la yàlla moo ko def ci moom te nit ñi na nangu Modou Lo dama ko seetaan di ko seetaan ba wax naa leen ne bi muy dugg si laama ji arène bi bëri lu metti bis bi kombaam taxawee ak Xaadim Diallo ma ne ko sama benn grand Aziz Ndee la mun naa ma ne ko xaadim jàlla ñëw pikin fekk nu marché kelmir ci magasin bi naan benn booy lan ma jox bu nekk bu nekk fële ma ne ko xamu bu nekk fa fële mais muuduloo de jëmm ji garab boo xamul fu reen yar yam boo koy buddi da nga koy buddi boo ko forcé rek ku nekk ci sa ginnaaw mën naa dégg dara garab mën nga koo xeeb waaye reen yi mën naa sori boo forcé boo forcé buddi ba rek boo moytul mën ngaa bàyyi dara muuduloo ndogalug yàlla la daa doon koo xamante ne garab la waaye reen yaa sori macha allah kenn xamul fu reen yam wala bose déggoo ma maa eh, la garab eh, eh, bi fu yéene bu cangee mu dañuy ñëwaat ah parce bu cangee rek damay connecté waat directement bu bougé nag dégg nga yeggal man dama maa la wax ni la dama la ni muudu hmm. ci jëmm mën nga koo xeeb waaye daa damay cax doomu aadama yi di leen cax ni leen garab boo xamul fu yéene yem boo koy buddi bu ko forcé da nga koy yoot ndànk waaye boo ko forcé rek mën ngaa yëndu muudu dafa doon koo xamante ne si ni yàlla moo xam li nekk ci moom hmm. mais mburum ndogalu yàlla la parce que dina la benn affaire bis bi nga xamante ni si la Xaadim Diallo ñuy fekk nu Pikine magasin euh, magasin Alkarim naan benn booy lan ma jox ma xool ko ba caag ma ne ko Aziz mu naa ma ko booy boobu ñu ngi dégg rek naan booy booy booy mu naa ma ne ko <laughs> balaa nit ñi xam ne du booy rek paa daa jeex paa yi daa jeex naan lu ndaw la loo xam ne boo ko gisee mu naan ko Aziz lu ndaw la loo xam ne boo ko gisee tuut gim tuut dañu fi déwé ma ne ko billaay tuut gam tuut mu duloo kenn du moom bu dee gudd rëy la làmb ji amu fi place bu lee jom fit fayda Modou Lo ci man ñëpp moo ci sut ñëpp ndaanaan la xar kanam gi mu yoroon ci làmb ji dara ci mbappat bi ba tey jii dara changé wul ci Modou Lo amul lu ci changé lu su mooy jom fit fayda mës a ñëw gemb nu gis ci moom lu ñu warul gis ci moom wala mu ñëw taxaw taxawaay boo xamante ni boo gisee nga naan physique man gis naa ay mbër yoo xamante ni sii nii bi ma leen gisee ci internet bi damaa tiit man damaa ruus Modou bi muy ñëw taxaw di bëre mbapat soixante-dix jours mbéygay Tapha 3 mi nga xamante ne sii nii moom lañ doon wax naan Modou Lo moom jour boobu nga xamante ni moom lañ xañee Modou Lo làmb ji Modou Lo moom jour boobu sax moom moo daan Tapha 3 mm. noonu wax defet boobu noonu mais Tapha 3 boobu noonu mësul daan mel ne mbër mu riñ ki la woon bi xam nga ko Tapha 3 mm. mm. mbër bari woon ay salen salen la bis boobu noonu kooku daanul Modou eh, Modou dafa dikk bi jeex gars yi ne deuxième man eh, na ñëpp connecté dafa mot une heure de temps na ñëpp connecté waat ñu yegg rek mu waaw gaaw a màbb si ñëwaat ñoom ñëpp ñëwaat fu mu toll waaw ñun suñuy suñuy waay leen parce que dañ ni wax ak woye yam wax jun suukar la nit boo dee wax dëgg wax ak woye yam booy eh. wax jun suukar la mais àddina booy wax waxal loo maîtriser rek dëgg la parce que mhm. nekkul benn mutala moo doon seetaan lamb ji di seetaan bappat yi. dëgg dama la bëgg a wax benn mbir bu tuuti boo xamante ni sii nii. Mhm. dama bëgg nga xam ko. Mhm. gis nga Beuz. dafa am ñetti mbër yoo xam ne nekk ci lamb ji te ñetti mbër yooyu nekk ci làmb ji ñetti ñooñu noo nekk ay moodu moodu nekk fii immigré ci lamb ñoom ñoo nekk ci biir bitim réew gii ñu nekk nii. lamb ji. ñetti mbër yi noo fi daje te Modou da cee doon kenn. Mm-hmm. il faut ndaanaan kenn kenn ku ci nekk dinaa la wax moo ciy kan. Mm-hmm. làmb ji dafa am ak ñor tàbb am ku nu wit am ku nu gësam. waxu booy ñaar bi de laa dégg. Modou Lo ne booy ñaar nag sax eggaliwu ko maasu ko daa wax araf ba bàyyi maasu ko waaye man dama koy maas. Mm-hmm. ñor tàbb bi wit gësam. dafa am ak ñor tàbb bi am ku nu wit am ku gësëm gësam. ñett ñooñu noo dajee ba ci bitim réew gi nooy Modou Modou yi ñoom noo daje ci làmb ji. ku ñu witti mooy ki ñuurul ki nga xamante ni si matul mbër daa gudd rëy rek nekk ci koñ ba jekki-jekki gars yi kii ku ñu ko duggal ci làmb ji mhm. koy ku ñu witti ñuurul mhm. bu duggee ci làmb ji du fi dara mhm. te jaar na fi téeméeri ponkal jaar na fi yoo xamante ni bu ma bañul woon na koñ ma dinaa la ko ci wax te xam nga ko xam naa ko mais nan yam foofu dëgg la ku ñu gësam mooy kin dimbali ki nga xam ne daa nekk ci koñ bi ni ko kii ci buntu bu màbbee waa koñ ba màbb gars yi kii nangam nit ñi ñëw nangam ànd ak moom jox ko loxo jox ko loxo jox ko loxo borom mm-hmm. làmmeñ ñi jàppale ko nit ñi jàppale ko gars yi jàppale ko. Mm-hmm. ba mu am ak ba mu am ndam ci kaw ay kàddu. ba mu mm-hmm. nekk champion ci kaw lan puus bu koy puus ak di ko tegale di ko jàppale ba mu doon ci champion. koo ku nu gësëm mais Modou ak ñor la ci làmb ji Modou Lo. ku ñor tàbbi mooy buzz. ñor tàbbi dara dàq ko. xam nga mango boo ko daggee ci kaw. Mm-hmm. boo ko lekkee lekkin wa du neex. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ko gësëmee ba léegi. lekkin wa du neex nam waroon a neexee ak boo ko xaaraan ba mu ni puutal boppam. Hm, dégg naa dëgg. Modou ak ñor tàbbi la ci làmb man Mourtala Sène man maa la wax lii dafa tarbiyu làmb Modou bu fekkoon ne làmb doona wax ni daara la Modou Lo koo def ci pot yi tarbiyu ko yelwaan ko lekk ba doon ci ab xaafis ñëw taxaw te dinaa la benn affaire. Modou dafa daf maa jàngal lu bëri loo xamante ne sii nii diggante Modou ak Balla ak Yaxa Jóob Yékini dama am lu ma jàng ci ñoom ci làmb ji gis nga bës champion bu mel ni Modou Lo mm-hmm. champion bu mel ni Balla Gaye samp champion bu mel ni Eumeu Sène ci mm-hmm. man li ma fekke di xool di leen gis mm-hmm. ci laa ñoom ñoo ma wan ni ma ndekete yoo bës wooy aw cax la ci naka buñ ma saane seetaan mbappat ba mbappat mi nekk trois heures trente ci guddi Mm-hmm. jëm quatre suuf sedd guy àddina bi ni tekk doo dégg dara mel num donguloo kasa ngay dégg mu naan lu waaye doonu taalibeem doo doon sëriñam mm-hmm. te ku bëgg a jur mbaxana da ngay nangoo doon daal mm-hmm. ndax dégg nga li ma la wax ni bu baax ah, muurloo taalibe googu mu doonoon ci mbappat mi moo ko def tey jii ab sëriñ dàll woo mu doonoon ci mbappat mi tey jii moo ko jox lu roi des arènes bii nii moom moo ko jural mbaxana bii ñu ko tegal ci bopp mooy lu roi des arènes bi kon xale yi danoo war a jàngi bëre Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax yaa ngi koy nangu wala nanguloo ko. waaw danoo war a jàngi parce que xale yi jàng yi bëre. ba ma gisee mu Lo teg la couronne bi mu nekk le roi des arènes ma gis ko ci Eumeu Sène ak ni ma leen doon seetaanee ci Mbapat quatre heures du ma di leen seetaan nuy bëre quatre heures matin ki yor micro bi naan quart de finale ak demi finale xale yi nekk ko fi ci benn saako ceeb mendum ndongo mu nekk ci digg géew bi. naan lu waaye doonu taalibeem doo doon sëriñam ndekete yoo boobu ndongo dana doon cax ndekete yoo boobu loolu aw cax la woon ndekete mooy fi booyu tollu tey. Mm-hmm. dëgg la doon wax ku bëgg ku bëgg jur mbaxana da ngay nangoo doon dàll dàll woowu hmm. daanoon ci mbappat mi nu di leen noote tey suba nuy noote waat seen mokk googu nu mokkoon ci mbappat mi ndax daxu doonu dàll tey jii muy ñooñu ñëpp nekkoon ci mbappat yi doonoon ay ndaanaanu mbappat ci nekk yéen nga roi des bi tey jii dàll wi nga doonoon ci la tegal kuréel bi ci sa bur bopp bi muy Modou Lo muy Balla Gaye 2 muy ci nekk da nga ne la la defoon aw daal moo la tegal kuréel bi ci biir ci sa biir bopp kon loolu mooy Modou Lo dafa mbappat dafa galère ci mbappat ñëwul ma ci mbappat Modou Lo dama la ni Modou Lo dafa ñëw nekk koo xamante ne si ni doole ji ba fulla ak fayda ak kanam gi mu amoon Modou Lo ku mosaan ñëw mbapat ba nga xamante ne mi ngi ci digg biir mbapat mi lu dul waaxu déglu ñu ni Modou ak keneen comme àndulul tuus du la nuyu. Mhm, mhm, mhm. mbapatum Mbaye Gueye dafa ñëw cent douze heures Mbaye Gueye xar ko ñetti parti combat benn ko xañee muy Tapha Tine am mbër mu rinki woon moomu noonu coow li bari kooku nekkul dafa daan Modou ko kooku daan Modou Lo nu mu demee coow li bari ba léegi nii dégg naa ko mu taxaw ni moom man moom moo daan Modou Lo ma ne ko billaay maa ngi toog daanoo Modou Lo leen a sonaloon rek xam nga daanaan gar mi dëggantaane njaay oh po po po po hmm. boo demee boo demee wàll yaani rek te bari woo ay mbokk daana ko loo hmm. def ma ko la ci am sax bu dee am yow Modou la la daan yow balaa léegi yow danga ko bu yàgg hmm, combat boobu nu mu demee ci boo koy fàttaliku ma xamal allo ma ne combat boobu nu mu demee ci boo koy fàttaliku. li ma koy fàttaliku di ko fàtt comme tey jii ni ma jàkkaarloo ak yow noonu la demee kooku dafa nekkoon bu ma xam ne mbër mu rinkile woon mbërum tànk la woon. Mm-hmm. ba mu dawee jëkkante ak Modou xam nga Modou dafa doon mbër moo xamante ne ku ko waay massa jël ku ko massa ku ku ko jël xam ne jël nga ndaanaan. Mm-hmm. bam ne càppi daw jël Modou Modou dafa dafa daw ngoole ñaar daw dóor ko mbootum bàyyi ma. mu ñëw mhm. ak si forcé waat ak doole ji Modou Lo daw Modou Lo daw faa Modou Lo daw ko. Mhm. parce que Modou Lo tërëf boobu mu tërëfoon contre Lac de mel na koy daanu jékki-jékki tërëfal tànk yi nii daal di na luy yàgg na koo def mbapat. Mhm. bëree moom ba ci yàgg mu tërëf ci biir làmb ji xaar ko ci suuf boobu fekkoon Lac de Guiers 2 dañuy bëxët Modou Lo da koy yéene ba ci loolu man xam naa ci dara ndax gisoon naa mu di ko bëri ci mbapat. bu ma sànni ba ci yàgg may fakkatalu xaar la ci suuf boo nee bëri dal ci kawam da buddi ba ci kaw dóor ci suuf pièce la woon kon. waaw pièce la woon ba mu fu jógee moom Moodu man ma di ko seetaan di ko jour ma lay wax ne la Moodu Lo ñëw taxaw man leen ni booy bi bàyyi boo gaay yi bàyyi parce que nekkul moroomu gaay parce que am na fit am na jom am na fulla am na fayda te man xar kanam gi nga xam ne moom laa doon xool Moodu di di gisee Moodu Lo ci làmb ci mbapat ba tey jii xar kanam googu deñut man Mourtalla Sène man maa la wax lii. kon il a toujours été constant constant moom bu muy bëri ci nga ko sumil dama leen bi mu bëree ak Elton mboot mi mu mbot Elton moo tax ba jëmmi jamonoy tey jii laa la wax dama la ne fu ma dawee sama oto dugg essence Elton bu ma nee essence amut mën leen mbootu Modou loolu kenn du ko dindi. <laughs> non bàyyi naa la ci yàlla ne la at bi du la digganteem ak Elton nit ñi taxawoon ci ginnaaw Elton man talaa seen man maa la wax lii. bu fekkee ni li ma lay wax nii boo tax Modou gisoo ci moom cat gisoo ko ci moom bi ko Modou Lo ëmbee dafa mel ni gileem bu góor ci ci aw bëy bi ko bi ko Elton ëmbee hmm? jàpp ko ba jàpp ko fu baax daw ñëw xar ko bis boobu noonu bu ko Modou Lo wane ginnaaw da ko da ko mboot te yamul foofu ci kombaa boobu laa ci ko làmb jooju laa leen ne bay boo Modou Lo gars yi bàyyi moo tax combat am ak lees numéro 2 mën leen kii du am ci Modou dara ñu ne tax mën leen la ko Modou Lo ñamaloon parce que nee naa leen Modou li tax li ko yàlla may nii Modou Lo ji réyul mais dafa. am lu mu wan gars yi ci biti avant la avant arène. Mbapat kon mais jour mu bëri Elton ci la bëri ak lees. Mbapat ci la bëri ak lees. mais yeggali moom ak Elton après nga ñëw ci moog lees. yeggali moom Elton bi Elton def ko ni cëq daw jàpp ci ginnaaw parce que moo ko ëpp chronologie Modou Lô dafa tuuti. Mm-hmm. xëcc ba mu ñëw mu taf ko daw jël loxo yi daw xar ko ci suuf bëgg koo buddi yéen ko Modou Lô daw jàpp ci bi set bi fii. Mm-hmm. am na ku may wax man seetaanu. waaw yeggali yeggali. waaw yeggali yeggali li nga mbot mbot ko ba nar koo xar ci biir làmb ji man Mourtalla man maa la wax lii. Hmm? mais xanaa jël bi dafa desee leer parce que Fall Faly Sey ci commentaire Instagram yi mu ngi may ne. mais hmm. buzz. Elton bu mu def ak Lamine nee na moom moo daan Modou Lo wala. déedéet kooku daanu Modou Lo ñooñu géeje waay bu nekkoon Balla Gaye numéro 2. are Jaal Mbaay wala are Duba Lees are xarañ loo lay tudd. menum Balla Gaye doo ñoom nan sant Balla Gaye bu baax. bu nekkuloon Balla Gaye numéro 2 arrêt Dial boobu dañ koy changé tur bi arrêt Louga tudde ko arrêt arrêt xarañ loolu. Ah. ku fa mas a daan non laa lay wax géej waay ku fa daan Modou amu fa. dégg loolu li ma leen ni bu baax les deux moomu noonu bi muy bari ak Modou Lo moo gën a ñaaw la téeméeri junni yoon jàpp Modou Lo bëri la def xandaalu Modou daw xaar ko ba mu ni teg Modou mbër mu dégg bëri la xam nga bëri dañ koy dégg kom galañ. Mm-hmm. wala dégguloo ma ni baax moom Moodu da koo mm. tolone da koo mm. tolone mu taxaw di ko xaar Moodu ni càppet buddi ko ba téye ko asamaan asamaan ne ko jóg suuf jox ko suuf mu fëgg ko ci suuf nga bës gis nga bës mais gars yi Modou Lo ak Elton dafa am premier deal loolu la wax damul benn premier jël ah xanaa kon bokk na ñaari làmb la ban ba làmb ja tasee kon xañ ne pale fa la ko waa géej way tëggee ba làmb ja kon xañ ne làmb ja daa tas ñu yeewaat Modou Lo parcelle ni ko kaay bëriwaat ak kii nun da xanaa nun man de benn jël laa fa gis yaa ngi dégg mais gisuma fa ñaari jël gisuma fa ñetti jël man benn jël laa fa gis gis dama lay xamal benn affaire ni la kon Modou daa yenu daa yenu les deux nga ni daa yenu les ba ci kaw nga ni dafa yenu les ba ci kaw daf koo yéeno ba ci kaw jox a a asamaan ne ko suufa la gën a jige envoyé ko foofu rek man damay tëddi ndax yaa ngi dégg mu mu mu mu fëgg mu fëgg ko ci suuf. Hmm. kon Modou ak waa Géejawaay est-ce que à part ñoom ñaar am na keneen Modou Lo bëril Géejawaay amul ku mës a daan Géejawaay Modou amul ku fa mës a daan Modou Lo ku dul Balla Gaye de daan yi ko daan ci arène bi ku ko la wax ni la moom daan na ko na ñëwti live bi taxaw ni ma na amu fa hmm. buzz buzz dama laa wax ni la Modou bu dee ne làmb jëmm la wax naa la ko waxaat la ko waxaat la ko bu dee ne hmm. làmb jëmm la hmm. amul place ci arène bi mais bu hmm. làmb demee ba des jom fit fayda fulla ak gëm boppam moo ci man ñëpp man moo talaa seen maa la wax loolu am na am na am na ku ma ne bëri nag les de ah. man de yu bëri yu nu bëri yëpp man bi ma ci xamante ni si man moo yenu ba moom laa ci fekkee te gisuma fu ko ba lees de ma sa daane te man gisuma ko te Modou Lo man dama ko topp bi ma ko toppee ba topp ko muy ñëw yoof di nga xamante ne sii ni moom Modou dafay ñëw yoof di di bëri si. ma mm-hmm. fekk ko yoof di ko seetaan un an yi kenn mënu ko fa daan. Mm-hmm. man mii maa ñëw nekk fa gan di ko seetaan ba ci ak man leen ki jaaxal bu ngeen ko xamoon. Mm-hmm. di ngeen ko di ngeen def moom attention man nii maa dem jàmm gën jëli Baye Góora. jëli jaañ bay jëli Ouña. Modou Lo benn mbër ko mas a daan ci mbapat mbër mu leer. mu ñaa moom nga xamante ni si ne ma ngay ko sa garage Cambérène ba booy dem booy dem buntu Pikine loolu nga fekkee boobu noonu. waaw boobu nga fekkee. waaw boobu Modou Lo daa tëwoon yoof nga dem boobu Modou Lo woon yoof daf du yoof dong la tëwoon de Modou dafa mas a tëñ yëpp. Hmm. dafa mas a yëpp bi ma ko jëlee jee jàmm gën ni gars yi dama bëgg ngeen ni ko jaañ ni ko jaañ bay dama bëgg ngeen dimbali ma am na ku nekk yoof koo xam ne kenn mënu koo daan. Mhm. yaa ngi dégg Moodu moom ku ko mën a daan newul fii mi ngi bëgg a rey gars yi ñëw leen bis boobu man maa ànd ak jaañ bay ak baay Góora ak mhm. sama mag ay makaar nu ànd ñëw yoof mhm. reer ba pare ñëw ci làmb ji bis boobu noonu Moodu bi mu dikkee premier combat la bari deuxième combat moom moo tasante ak uñaa uñaa moo nekk ara jàmm gi uñaa moom daanu ko moom kase uñaa daan na ko daan ay moroomam daan ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yàlla moom mooy dogal wërsëgam nekkul ci làmb ji mais koo xam ne daan nga tey jeunes. mais lu tax nga gisoon daan papa mu bëgg la laaj techniquement lu tax yow bi ngay dem uti ji mbër bu daan motuloo nga gisoon uñaa lan la lan moo nekk ci uñaa ba nga xalaatoon ni dafa war a mun a daan motuloo. gis nga nun boo gisee jàmm gën yàlla fay nu ko mel ni Siteu. Hmm. yàlla fay nu ko mel ni waa jàmm gën laa lay wax waa jàmm gën. Hmm. dama lay wax benn affaire magi jàmm gën yi ndaanaane jàmm gën yi ñooñu ñoom booy yi mënuñu leen a dab ci bëre ñi dàqoon a ci jamono jooju noonu jàmm gën la ñu yeewoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñooñu amuñu woon sens ci làmb. moo tax tey jii nii ñëw yàlla ñu andi fa. am sista andi fa maama Lamine andi fa am siidi jàmm gën andi fa keneen ak keneen ak keneen. ba ci mais bi ci bëri bi da nga indi ku mun bëri kese wala da indi ko xamante ni bërim jubuwul. dama la ni uñaa moomu daanoon Modou Lo benn mbëri ko masa daan ci làmb ji côté boobu noonu muy Batika moo ko daan teenee bën bën. mennum Batika moo mës a daan uñaa mhm. ci làmb ci mbapat mais bu dul Batika amul mëneen mbër moo xamante ne sii ni mos nañ la gis sax nga taxaw te uñaa fowewu la li ma lay wax nii daal moom xam na uñaa gars yi xam nañ uñaa bu baax a baax a baax a baax ndaanaan ndaanaan la woon mhm. mais yàlla moo deful wërsëgam ci làmb bi may koy gis boobu dama gis mhm. lu uñaa di bëri mën a bëri lool tolloog Moodu ma ni kii kii su ko andee war naa mën a daan Moodu de ndax bu uñaa kenn mënu ko daan deux la doon toog kenn du ko daan Mm-hmm. te mbappat mën na lay wàll yaani bis boobu bi ma mm-hmm. nee ko am na ku tëj ci yoof bi ñu ñëw ni ñëpp ab super lañ jël mm-hmm. bi ñu ñëwee làmb ja fekk muudu tuus ba pare booy ñëw tuus mën leen kee moom kee moo jaaxal gars yi muudu bëre premier combat deuxième combat nu ñu muudu la ak uñaa keroog ñu bëre fa bëre boo xam ne fa la bëre yam Hmm. ñoom ñaar dañoo bëri ba mel ni kuy saanante ay yére ba mel ni kuy soppante ay yére ndax bëri bu neex di nga xam ne Modou Lo ndaanaan la. Hmm. Modou Lo yi ci Modou Lo la ñuy naane. parce que man Serap Fall la wax lii. nan la ko uñaa daane. uñaa Modou Lo dafa croisé comme croisé mbootamit loo ko jox dafa nekkoon mbir moo xam ne dafa am épaule. Hmm. mu dawee jël muur ci suuf rek Modou daw jox ko tànk bi. mu bàyyi suuf bi daw takk ndigli rek Modou daw croisé ko rek dem ak dem mboot mi. du ndee moom mboot ma rek mu daw mu daw sulu mu daw mu daw suluxal mooti parce que moom loxo yi amoon doole mm-hmm. bu mu dawee suluxal mu daw teg ko daw teg coon ci bi muuru dafa yàgg mën a bëre parce que uñaa ma ko sàccoon doole muuru daw taw teg muuru teg coon ci bi ba léegi daanoogul mm-hmm. uñaa daw décroché mboot moom mu muuru doon mbopp nag faf moom croisé ko muuru bi muuru mm-hmm. du sigg rek uñaa daw yokk ko mboot mi keroog ban daanee muuru bi muuru dee ba mu daanee muuru muuru ca beneen samedi ba muuru dafa ñëwaat waa jàmm gën a ñëwut ba dikkee fekk ma man nii ma taxaw ak gars yi dafa ñëw taxaw lu mu jëkk wax mooy ana sa gars yi te da doon fayu si. du ragal booy. da fayu si. bu dul loolu man Mourtalla suivre ma mbër mu daan Modou Lo ci mbapat bu du. suivre doo ko fekk effectivement. fekk wu ma ko man man fekkee wu ma ko man. Mm-hmm. waaw mm-hmm. man maa la wax loolu. mais mais mais mais mais mais mais Modou Lo keroog bu ko uñaar daañee lan moo nekkoon réaction est-ce que mbër bu. am na am na lu ma gis si moom la. waaw dafa am lu ma gis si moom te dama lay wax ci moom pour ma xam ne booy boobu ndaanaanu ndaanaan la bis li ma lay wax nii. aka neexoon ligne bi mën a dugg ba Modou dugg ci ngay xamee ni kon lépp looy wax rek dafa war a am seede bis boobu bi Modou du bëree ay chinois yu jóge woon côté. Euh, xawma fan ñoom ñu organisé woon sax làmb jooju dañoo ñëwoon pour fekk si ci làmb ji ay chinois. Mm-hmm. ñëpp leen joxoon xaalis bis boobu Modou Lo bi ñu ko daanee xaalisam te temps yooyu Modou Lo mu euh, ci mayga yi la doon jaar soog a ñëw ñëw ci mbapat yi. Mm-hmm. kon bon mu yàgg bañ defet la. ma remarqué ci loolu mais la ma cay yokkaat di ko ci remarqué mooy li ma ci gën a neex te gën ma ci neex mooy même ban ko daanee ba ca samedi wu jotaatee dafa ñëw pour fayu si. Mm-hmm. dëgg la dëgg la. wala dégloo li ma la wax nii. lu leer nga wax ñëw pour fayu si. Mhm, mhm, mhm. am na kon wax la ni la. kon Modou mbapatam dafa nekk loo xamante ne sii nii li tax mu ñëw ci arène bi sonal gaa yi mooy parce que booy yi mu duggandoo ci vague bi vague bi nga xam ne moom la àndandool vague bi ñun ñëpp ñu duggandoo Modou dafa ànd ak ñoom danoo xare ñoom li naan lu ñor bas koy màcc tey démb leen ko saxaloon muy soo a ñëw. est que Modou Lo ni mel. est-ce que Modou Lo mu mel ci début carrière am ci Modou Lo daf début carrière am ku fonkoon mystique la Modou Lo da daan ba pare sax gars yi di jubilé muy for gàllaaj yi est que noonu la meloon ci mbapat ci eh, dama lay wax benn affaire gis nga Modou bi muy ñëw mbapat di sottee ko benn benn bidon Evian sax Modou dafa am xadar Modou Lo dafa am xadar Modou Lo dafa am fit hmm. c'est pas que ay affaire gàllaaj ak ay yu nangam sangam gis nga fi sëriñ boo fi dem dama la bëgg wax benn affaire sëriñ boo fi dem da ngay rang génn sa morom dugg wala nga xaar mm. kenn mu génn sa morom dugg. Mm. mënuloo ëpp sëriñ xamu fi lu nit ñi xamul. Mm. muy dem sa oto ko fa yóbbu. mais est ce que fonkoon na est ce que daawoon na ko wane lool ci mbapat. dama la ni Modou Lo daawul wane lool lu weesu ak xarañam gii nii man te mosuma koo gis lu weesu bitéelu Evian ngémbam goog mooy langu ak sortam boobu mooy sol wala blouson bi. te ñëpp la ci sonaloon kon làmb gars yi ne ko nag làmb. kon Modou dama ni saf gi Modou Lo saf wala dégg loolu maa bu baax dama ne la Modou Lo mbëri noo bëgg sa suuf mais Modou dafa weex Modou Lo xadar bi mu andil gars yi moom la ñu bëri àttuni bi muy bëreeg laay bay ñu laay bay dafa gis jinneeg dafa gis ah, benn malaaka bu ndaw yooyu noonu fekk lam teg xaadim jàllo Modou dafa duggee ci làmb ji xam ne làmb Modou Lo ku gars yi gis nga la may xam mooy buzz hmm. Modou ku gars yi war ku gars yi war a delloo njukkal la ndax tolluwaayam ak ay jëfam ci làmb ak lu Modou Lo liggéey ci làmb ba am lii mu am parce que Modou Lo tey bu dee nit si jëmm la mën nañ koo méngaleeg sa jëmm jooju toog mais nee naa la jom. waaw maa ko <laughs> fit fayda aku fit moom la Modou Lo man mu talaamaale kilo fit man bëri ko tàppet. Mhm. te gis nga mosoon naa la ko wax fi benn jour ni la Balla Gaye nee na ma koo ñëmewul mënoo koo daan. Mhm. mais Modou dafa doon koo xamante ni sii bala moo xam ne yaa ko man da laa gis mm-hmm. da nga ko daan ba woon ko ginnaaw di di daaw di mm-hmm. waaye Modou Lo dugg si ci arène gannaaw Mbapha tamit. waaw dugg si bu yéeme. ñëw daan ay ñoom Alioune Seye numéro 2 ñoom Khadim Diallo bu Pulaagu daan Serigne juuf yenn ba ci kaw dóor ci suuf. est-ce que. xam lool les deux waaw. xam nga la waral lool. Mm-hmm. mboolem ñi nga xamante ne nee naa la Modou Lo bi muy dugg ci làmb ñooñu ñëpp ñu Modou Lo ñoo bokkandoo benn sumb benn fóot la benn fóot. Hmm. waaye ñoom bu ñu doonee ay yére yu weex muruloo daa doon yére bu rouge ndax ñoom ñëpp a ko xamandoo ci mbapat mi. Hmm, hmm. borom drapeau yi lañ ko doon tuddee sax ndeysaan. déggoo ma de dama la ne bu fekkee ni ñoom danoo doon ay tiset yu weex Modou Lo tiset bu xonq la parce que dañ ko ràññee ci mbapat yi di leen a sonal ci mbapat yi. gudd ñu gars yi nu ñu yi mais jom ak fit ak fayda gi ak li ñu doon imposé gars yi ci ba pare man a bëree ba pare boolewu ci wax gis nga buzz danaa la xamal ne la gis nga àddina dafa am loo mhm. xamante ni Modou jàngal na ko mbër yu baree bare bare parce que mhm. dama laa bëgg a xamal ni la Modou dafa wane ni façon naar yu góor yi mhm. façon naar yu góor yi rawante wuñ ci ngeexal ci aw xël lan rawante te ku jëf ba raw la Mhm. mënoo wax ba dab ko mais Modou Lo dafa jëf ba rab boo dafa jëfoon ba raw mhm. booy ci mbapat jëf ba raw leen ci arène bi moo tax ba léegi gars yi mënuñu koo jot parce que mhm. Modou Lo am Modou Lo moo parcelle ci mbapat ci làmb ci arène arène Sénégal bii turu parcelle Modou Lo ko dugal ci làmb ah Ousa Sow nag Papa Sow yooyu wala ñoo dama la ni Ousa Sow ñëpp faas la nekkoon déglu ma ma wax la li lay wax ni ay waxu nit laa lay wax bu jëkk ba làmb boo fa tuddee écrit séeréer Mm-hmm. faas ngay wax wala nga ni écrit waalo mm-hmm. Mm-hmm. wala nga ni écrit pikin wala dégg loolu ma ni bu baax tey jii Modou dafa nekk mbër moo xamante ni sii ni bu demee ba tey jii parcelle ñu bokk ci eh, ci làmb ci làmb Sénégal ak cause de jëmmam ju tuuti dooru la te bi muy ñëw ci écrit boobu noonu fekkoon na ne moo doon ku gënoon a doon tuut tànk ci écrit bi gën a tuuti ci écrit bi kon tey ji yëkkati na parce yëkkati goo xamante ni si ni ko ci làmb bu àddina si doon xa buñ ko aj na ko foo xam ne ci làmb bu doon xala ngaayo jëm suuf ba keroog làmb yi àddina yi tukki ma parce que mënutu ko fàtte ci làmb gars yi man laaj la yow est-ce que jot nga Ama Baldé Modou mbapat wala euh, wala spécial Ama Baldé dina am de ah incha allah non kooku maa ko parce que parce que parce que comme ñoom danoo am danoo am règlement de compte kooku maa ko gën a yàkkamti spécial yi man spécial ba ma jox baax. spécial euh, euh, Ama Baldé pat wala Modou ak. Modou Modou Lo ak Mouma ko mais samay xarit yu demoon seetaani làmb ji ñëw nañ ni ma sa booy bi di démb daj na lu méttee méttee méttee méttee. Hmm. ma ne ko tax ñun ma sa Mouma bi nga xamante ne daan wax naan kii doole ji làmmeñ ñu bañ a wax la nekk ah, mu naa mu moo doon bëri ak Modou waaye bi mu bëree ak moom mu ah, ñun ma sa booy bi bëree naa bëree bëree bëree bëree ba bu fekkoon ne avance daa nekk ci ngémbale bu ñu ko ko noonu jox ma ko bu doon avancé da koy tekki jox ko te dem yoonam dara la mënul ci moom. Mbadou. la wax lii loolu fekk moom. fekk lan moo tax sa xalaat Modou Lo woon dara ci muuma. non muuma kenn mënul woon dara ci moom muuma moom dama lay xamal benn affaire ku la ne mënoon naa dara ci muuma kay daa fa kastaloo nga am ci moom dara mais muuma moom ndogalu yàlla la woon rek yàlla moo ko ni man maa la nattoo mënoo wax waaye dinaa la na nit ñi yow yaa fi man xanaa Boy Seye Boy Seye moom moo mënoon dara ci muuma waaw Boy Seye mënoon na keneen ku dul moom sax parce que lamb ji noonu la contre la ak sens contraire. xam naa li nga mais Modou Lo moom pour muuma moom c'était compliqué quoi pour mu mun. non non non da doon compliqué parce que Modou mën naa compliqué ci ñëpp. parce mm. que dafa am nu mu demee rek. buzz mais Modou bi muy bëre mbapat Modou ak wow gu mu wow moo tax Modou am lu bari ci làmb lu kenn amul ci làmb parce que Modou daa nekkoon mbir mu xam ne dafa wow ko nga ko nga ko parce que dafa contact ak contact contact boo ko gisee boo ko gisee mooy ni ma la ko waxee dafa contact ak contact bokk ci lu tuuti la lu tuuti la mais caas gi mu caas ak wow gi mu wow Modou Lo bu ngeen nee kirtim jàppante bu ngeen bayantee da nga naan kii du jëmm ji ma jàppantee loolu Hmm. parce que Modou Lo même bu daan bëre mbapat bu la croisé ci benn loxo bi bu la téye nii bu jàppee sa benn avant-bras bu la croisé ci loxo bi bu la téye nii boo moytu doo bëre ba tànk defoo action mu daal la doo bëre te comme ci masaana croisé bu la dóoree mboot bu la dóoree hmm. hmm, am na solo am na solo mais ci arène Modou Lo ñëw def def ay jéego bu mu duggee ci classe bi ah classe bi nag laa nga tojal ma Modou Lo Paul Maurice lu Modou loo bëri Modou loo Papa Sow les enjeux de ce combat exceptionnel. Modou Lo Papa Sow dañ ne wa Modou Lo Tafa Boy Bambara Modou Lo classe bi ngay xamante ni si Modou Lo ndaanaan la parce que ku ci nekk kale bam la daane boo ko teg bam daane sa moroom gi nga Tafa Boy Bambara da koo làmp ci kaw ba mu fàtte ci suuf mu cabaxal ko bàyyi ko muy wëy. Mhm, mhm, mhm. du dégg li wax ni bu baax. dëgg la Paul Maurice ñëw ni càppet diggante moom mu ni yunni Paul Maurice dem ci tànk bi egg ko fi tànk ba mu jeex mu bàyyi koog tànk bi. xam nga Modou Lo ndaanaanoo ndaanaan la parce que xel mi dal na ci moom jàng na bëri bëri goo xamante ni moom boo ko eggee fenn bi danaa loolu mënuma loolu teewuma bëri moo tax ba Paul Maurice jëlee tànk bi da koo ko wan ginnaaw ko ginnaaw mm-hmm. ko bàyyi bi daw këdd ko wan ko ginnaaw bi mu ko wanee li gën a rey Paul la fekk daw du doon rëcc bi moo tax ba mu ko këddee wan ko ginnaaw ba pare pour Maurice Ndioune bi Modou wëlbati ko rek xool ku yim ko doon moo yàq ba moo yàq moo yàq ba ne ba ma may egg ci suuf. day boole bëri mhm. plan la moo li gën a métti ci moom mbër mu jafee calcul la ci làmb parce que dafa ñemee ba pare te day boole bëri ak xeex. Mhm. Mhm. dëgg la. dëgg la wala déglu baax. bu baax a baax. mais boo jógee ci ci ci boobu man combat combat Modou Lo Papa Sow nga ni que Modou Lo mun na cee. génn ci Papa Sow Modou Lo si ñun daane Papa Sow laa lay xam la la daane ci Papa est-ce que xam la ne Modou Lo daane Papa Sow. Mm-hmm. daf daanewul Papa Sow lu dul maa la gën a doon bandi. parce que dañoo bëre ba bëre ba yàqu ci ginnaaw arbitre du soufflé boobu Modou papa boobu mën naa daan ku mais ba arbitre di soufflé coup yi ko Modou Lo dugal coup yi bandi yooyu noonu dugal ko ay coup fëgg ko ay coup xëcc gàllaaj ji fëgg ay coup ku la ko moo yàq làmbi Papa Sow hmm. Modou daa doon mbër moo xamante ne boo dee dégg bandi géew dëggantaani njaay xam nga xam nga jooj jooju mu yox noonu xam nga xam nga am jooju noonu yéen borom micro yi la koy wax de waaye mook adversaire ñoom xam nan ñoom adversaire yi ñoom xam nan xam nga xam nga jooju noonu yéen la koy wax mais Modou bu dee ni mook adversaire yi dong ñoom hmm. xam la ñuy xam Mhm. contre Papa Sow bi loolu moo yàq lamba Papa Sow parce que dafa deewoo ak Papa Sow bi ñu dee ko Papa Sow mu ko mu tuuti xoola ba bi di soufflé Modou bàyyiwul dafa jaay Papa Sow jikkoy jikkoy bandi dafa continuer action yi te xam na ne arbitre soufflé na mbër nangu nañ ci ak bandi ci biiru géew xoola dafa fëgg ay coup ñamal ko ay coup xëcc ko pare xëcc gàllaa di ñëw taxaw Papa Sow daal di coupé parce que mhm. Papa Sow mbërum jàmm la fekk Modou nee na ko man li ma soxla yow xamul comprendre comprendre ni mu demee <laughs> dëgg dëgg la dëgg la. est-ce que yaa ngi dégg wax ni baax bu baax a baax. kon dama laa xamaloon benn affaire la bu dee ni bu géew la géew xam nga mbër dafa am ñoo xam ne dañoo jonge ci géew am ñoo xam ne dañoo man géew. Mhm. jonge ci géew ak man géew bokkut mi ngi mel ni jigéen yoo xam ne dafa am am na jigéen ñoo xam ne dañoo jonge am jigéen ñu mën a sëy te jongewul. Mhm. am na jigéen ñoo xamante ne sii ni ni nga ca biir kër ga te bu ñu xëyee seen góor bu jigéen duñ ko nuyu te mu ne seen jëkkër ñi moo leen a bàyyi danoo jonge am mhm. koo xam ne ma ngay fóot di root di togg di def lépp te jëkkër ji mënu koo xool kon mën a sëy ak jonge bokkul ni mu amee ci jigéen ñi noonu la amee ci mbëri làmb yi dafa am ñoo xam ne danoo jonge ci ab géew dafa am ñoo xam ne nag danoo man géew mais Modou Lo dafa man géew hmm. Modou Lo dafa man géew Balla Gaye dafa jonge ci ab géew Modou Lo rek moo nekk mbër moo xam ne moo boole ñaar te loolu ñii bariwuñu ko am ci làmb ji xam nga Sénégal xamuñu ni star ak mbër bokkul Modou Lo rek mooy seen mbër boo xamante ni sii ni nii noo ko fi am Balla Gaye dafa am loolu mais damay wàccaat ba ci suuf yaaw jaal dafa am loolu mm-hmm. mais Modou Lo boole mbër ak star bokkut xam nga yaaw jaal ku ne xam na ni star du mbër mm-hmm. loolu leer na mm-hmm. mais Modou Lo dafa mixé ñaar dafa doon mbër ba pare doon star parce que daa doon mbër kaamil ba pare yàlla mayaat ko ndax mu doon star lan mooy mbër kaamil mooy waada mooy mbër moo xamante ne sii ni wane nga ko ci ay preuve tarbiyu ko ba pare wane ko ci ay preuve c'est pas que da nga ko kii ba pare ñu koy waxal de mais da nga koo wane mm-hmm. ba pare yàlla defaat ci moom loo xamante ni siini ni mbedd mu dugg bala moo génn mbedd mu fees dell wala ñun ma nga ak star la tey am na ñoo xam ne ñu ngi fay ko ay millions te yaaw jaal moo leen gën a doon star yaaw jaal star la star bu mag mm-hmm. mais mbër ak star bokkut El Hadj ak saajo Mané boo leen dee xool tey Sadio Mané mooy toj àddina bi man jaar naa Angleterre soog a dem dëkk bi may dem saajo maane moo toj àddina bi te moom mooy jour àddina bi te tey jii bu duggoon ci mbedd mook El Hadj Diouf à quatre vingt pour cent El Hadj la ñuy wax kon stade ak jour bokkul te maane Mané mooy jour bi. Mm-hmm. Mm-hmm. xam naa fi ngay waxee xam naa fi ngay waxee mais mais mais ñu jóge ci loolu Modou loo bëri Boy Kayre. Boy Kayre mm-hmm. nee na lu ko gën a yéem ci biir géew bi ci préparation yeeg yooyu Modou Lo ñëw naan ko père dégg naa li nga bëgg a bëri ak man. Boy Kayre jaaxle kon wax ji foofu de. booy kay dafa mu waroon a jaaxlee jaaxlee wu fa ñun loo foo ñu coupe rek foo baatee rek dañuy coupe. wax ma fu mu waroon jaaxlee booy kayre fa mu njëkk jaaxle mooy ba mu ne du bëreeg Modou xam nga Modou Lo booy kayre ba gas ko ne ko dund dee bëre. Euh, lu mu ma lu nekk ko màcce ko xam booy kayre mag la Modou nekk mbër moo xam ne menn mbër la daan ci fin carrière muy booy kayre keneen ku doon pour nga xam ne Modou Lo la bi mu lay daan da nekk ci sa digg doole xaay mu ñëw fekk la fa daan la ci digg ci sa diggu doole la la daane Modou Lo benn mbër la daan ci arène bi muy mbër mu nekk fin de carrière mais muy Boy Kayre mais bari mbër yi mu ci daan ñëpp ci seen da leen a fekk. ci Boy Kayre fin de boobu day koy dégg de boobu Boy Kayre. déggoo ma waaye ci ne waxee laa lay wax. Mhm, mhm. Modou nga xam ne pour nga xam ne bokk la gaa yi fu mu jaar Modou jàmbaari fàkk tëdd la Modou Lo yi fàkk tëdd la. li naan xuus jàll mais Modou Lo dafa xuus jàll kenn fàkkalu ko. Mhm. jàmbari fàkk dëggantaani yaay tëdd moom mooy Modou dafa bañ ba doon li mu doon. Mhm. Mhm. dëgg loolu ndongo loo naan gaynde njaay li ñuy roy lu ko bëtam xañul fitam du ko ko xañ mais Modou lépp lu ko bëtam xañul ci làmb fitam du ko ko xañ kooku mooy Modou. commentaire yi da ngay ree ba tas Ablaye Guèye nee ma bës yaa ngi tëb des na bàll ju fa Issa Pouye non non. Ablaye Gueye Balla Diouf exemple yi après Boy Kayre la. bu Modou Lo ci Boy Kayre ci la bëreeg Balla Diouf. ba muy bëreeg Balla Diouf Modou Lo bi muy bëreeg bala Diouf pour nga xamante ne si ni même combat boobu noonu face gi indi bala Diouf sax xam na nit ki mënta yëngal Modou Lo Modou Lo dina la mën a koo yee. maa la wax lii. Hmm. xam nga Fass daa doon écurie bu mag boo xamante ni sii nii gis nga soose bu Fass bu mosaan dugg si ci làmb avant muy bàyyi bëri entraîneur bu Fass ku gars yi war a la. Mm-hmm. bi muy nekk ca mbapat yi bëri mboot suñu benn xarit ba nit ñi dañ ko doon wax naa ko waratoo lekk ceebu soos ndax mboot mu réew mi mboot euh, ndax mboot mi soose mboot. soose saabu yow la donc mboot dan ko soose da ko mbot ba. ko fi moom soose. invité ko invité al parce que daa mbot benn ba mu jigi ko ni sunu xarit boobu dañ ko doon tooñ ñaan ko yow waruloo warutoo lekk ceebu soos ci sa àddina léeg-léeg sa dund dugg ci làmb ak li muy tuuti tuuti stade bi yëpp face moo mel noonu seeni supporters ñoom ñoo bokk danooy solidarité boo amoon vingt défaites sax ñoom ba léegi seen position. doo wàcc doo yéeg écurie Fass mooy loolu dafa mas a nekk boo xam ne dafa dox ci bopp nit ñi mais Modou bi mu dikkee dafa xoolul écurie Fass xoolul écurie séeréer xoolul écurie Ndakaaru xoolul écurie waalo Modou bi dikkee gëm boppam gum gëm boppam ak imposé gum ko imposé boppam moom moo taxaw raayaw kaw moom moo taxaw raayaw euh, parcelle bi tey jii ba addinay tukki làmb parcelle duutul fayati te jëmi Modou jooju moo tax Modou sóorul mbëru Fass sóorul écurie Fass sóorul mu tafaagay mu nekk ci sa ginnaaw sóorul yëpp gëm boppam gëm boppam Modou li mu gëm mooy bu arbitre bi nee pare nga du ngeen du ngeen du yow pare ngeen ji du ngeen soree. app yi boo ñëwal jóge nañ ci Balla juuf mais mais mais. waaw Modou Lo ba mbot bu mu mot Balla mu tàmmoon la de ah? bi mu mbot Balla lu mu tàmmoon la nee naa la Modou Lo daal nekk mbër moo xamante ne benn benn Modou Lo Modou Lo xoola Bombardier dem na ci cent quarante cinq kilo te Modou Lo yóbbu na ko ardo dinañ ci ñëw. ma tegal la ko benn par benn. Mhm. Mhm. Mhm. wala dégluwoon ma ni. maa ngi déglu ngaa taxaw ngeen signature contrat baax nga jël xaalis lekk ak say mbokk. waaye Modou Lo bu dara desut. lu dul say àndandoo génn leen. gaa yi fu ngeen jëm rek ngay bëgg a wax. <laughs> nga ni. Modou ku ne mën naa jël avance am wax loola neex ci signature. bokk ak say mbokk lekk sab xaalis. waaye bu dara desul dudul arbitre bi taxaw ni pir pir pir ne yi génn leen. Eh. adversaire bi. Eh. suñ gëstu yam ci moom gars yi fu ngeen jëm rek lay bëgg a wax ndax xalaat Modou. <laughs> du bëgg a wécc ci géew gi. barke man maa la wax lii nu ma la du deñ dama ne de Modou Lo bu mbër yi dee ndaanaan Modou Lo ndaanaane ci Modou Lo la ñuy naane man Moutala Sène man maa la wax lii. mais Modou Lo Issa Pouye. Modou Lo Issa Pouye keroog ba Modou Lo ba Issa Pouye suñu meekoo Modou Lo Issa Pouye man di wax ak yow. maa ngi woon ci kaw loos bi toog bi Issa Pouye sumee ko man bu fekkoon ne man bis boobu laa xam ne Modou Lo moo ma ëpp fit ba ëpp tànk yi ba mu dawee ba mu jaabee ñëw tëgg katam mi ngi may dégg dañ koo jox ndax ma dañ koo jox ndox muy naan ndax tànk Issa Pouye yi keroog laa xam ne kilo fit man bëri ko tàppet man mii di wax ak yow keroog bu fekkoon maay Modou damay dem ci si saw sawlu tëb miir dem ñibbi ndax tànk Issa Pouye yi mais gars yi boobu Modou daa sekki Modou Lo eh, waay waay waay waay te ngaa bàyyi te ngaa bàyyi li xam nga dama lay wax benn affaire nit ñi xamuñu sekki gis nga mbër ba ci ansi mbër fu mu déggee ay tëgg yaram bi day daw. Hmm. nit ñi nag dëndul xam sekk yi parce que làmb ji daf ci bari loo xam ne spécial CNG bi bis boo ma ko joxee lu bari dinaa ko làmbi lamb Sénégal danoo jëloon li ci neexu yëpp dem. bari na ay butéel yi nga xamante ne si ni ñoom daan nañ ko tuuroo muy móodoo moom ñoo ne gars yi di neex butéel jàpp gin jàpp ci làmb ji parce que une heure de temps nga nekk ko ci làmb deux heures de temps di yow boo doon moodu da ma doon moodu man ci stade bi man ci boppam damay dem damay bu ma demee ci duusi saw saw damay dem ñibbi ñibbi laay dem ndax tànk isaapu yi keroog laa xam ne ku taxaw ci làmb ji Modou Lo la ëpp fit keroog Modou Lo bi Issa Pouye sumee bi mu dawee ñëw taxaw mboolem loos bi ak ñim ko ñëpp noo dar seen gémme keroog laa xam ne ak 80 pour cent Modou Lo moo leen ëpp moo Modou fit man mii di wax ak yow bu doon man la keroog yàlla seet na dinaa fakkastu fakkastal wala ma malaise malaise lu wala ma malaise malaise lu mais du ma bëri ak Issa na ma ma malaise malaise lu mais du ma ndax daa ngi ne te bi ma ko xoolee bi Issa Pouye sumee man dama ko ñeewante xanaa xam Modou lu bari am na ko ci làmb ji mais li ko ko may mooy ndax ko may lii ci làmb mooy dafa tollul ne gars yi gudd tëyul ba pare lakkal waa àddina bi yëpp ba pare na taxaw nekk ku gëm boppam ba pare di ko appliqué loolu moo tax Modou am li mu am ci làmb mais Modou dafa toll li ko may nii ba àddina bi yëpp bëgg ko ba mu toll nii BVR Kane da koo liggéey parce que lu ñu yor ban koy màcc démb ko saxloon tey soog a ñëw Modou Lo ndaanaanu ndaanaan la mais dafa toll ni gars boo gisee waa Sénégal yëpp àddina bi ay mbëri national dafa mbëri yoo xam ne dañoo wër àddina am mbëri yoo xam ne ci gox ma tuddal ko benn mbër boo xam ne Sénégal tey jii boo noonu kooku du mbër tey ji live bi sama téléphone bi dañ koy toj mais nga tudd benn bër boo xam ne naa ah, kooku super ko xam nañ ko kon national dafa am ak international Modou Lo mbërum international la te du ko liggéey. Mm-hmm. moom Issa Pouye ñëwul ci combat bi. keroog moom Issa Pouye bi Issa Pouye dawee ba nga xamante ni suñeeku ba ñëw taxaw ak tànk yi ni Issa Pouye toll mboolem nekkoon ci kaw tribune bi ak ku nekkoon ci kii bi dangaa ñëw taxaw ñemeetoo taxaw di xool Issa Pouye ñeewante Modou moo tax Modou fu mu jaar ko parce que dafa liggéey ci xooli nit ñi loo xamante ne sii ni fu mu di jaar doomu aadama yi bëgg ko keroog man mii di wax ak yow Modou toog naa ni fi muy def ay dernier butéelam maa taxaw ni la fii la nekk ci biir stade bi mënoo koo wax ndax tuuti gu mu tuuti gisoo ko fenn mm-hmm. mu doon lu tuuti waaye billaay nga xam ne booy boobu moo am jom. Mhm. ba booy boobu ba mu paree ba jël sengoor gi ba ànd ak gaa yi ba fàkk yoon bu ba gaa ubbil ko yoon. ba muy daw di dem ci biir géew bi noo boos keroog boos keroog su ma amoon jamaa dama koy may Modou Lo. daa mhm. xam ne Modou moom. Mhm. mais Modou yàlla dafa ci moom benn secret boo xam ne Sénégal ñu bëri xamuñu loolu noonu. Modou dafa am lu mu liggéey ba pare gëm ko ci boppam gëm goo xamante ne sii nii. moom jàpp na ni boo tolloon ne ab 16 21 yàlla def na ci moom xam-xam boo xam te da koo tarbiyu da koo tarbiyu def na ci moom xam-xam boo xam ne ak dëgg goo xamante ne sii nii ak kattan goo xamante ne liggéey na ko parce que Modou Lo ba mu dalee bëri ba tey mosul ñëw ci làmb ñu ne Modou Lo andiwul état Modou Lo parewul Modou Lo jekkul Modou Lo ba ci ñaari defet yi mu daanu defet bu ci nekk ba mu daanoo dafa am lu manqué te leen rek moo manqué mu waaj da ko ëpp doole tuuti. dinañ ci ñëw. dina ci ñëw. kon dafa dem ba fii la koy jaar pour daan dafa dem Modou dafa gëm boppam te li ma lay wax ni ne kilo fit moo man bëri ko tàppet mhm. yaa ngi dégg li ma wax ni bu baax leer taxaw dafa nekk mbër moo xam ne moom buy arbitre di bëgg souffler wax naa la ko ni la yàlla da ko may deselatu dara waa parcelle waaye waa parcelle deselatu ko dara parce que gars yi dañ koy wër mhm. gars yi dañ koy wër te moom Moodu day bëril waa àddina du mbërum national mbërum international la. parce que mm. jom ji mu am bu ko tegee ci làmb ji moom gëm na boppam gëm goo xamante ne sii nii. tey jii li naan bisu dee bu jotee ku dund doo mais Moodu la heure bu ñëwee ci làmb day dee si daa jàpp ne day dee day deewoo ba dee. Mm. wala déggoo ma ni ba xam ne am mbër xamante ne si bu ñu ñëw ci làmb dañu yaakaar ne lem lan fay fekk heure bu ñu ñamalee seen làmb yàqu ñamal rek laa ñamal. Mm-hmm. ñamal xaw leen a cos nii rek. bu méttee ñu bàyyi. parce que Modou yàgg naa bëri ay combat te combat yi la Modou doon def adversaire bi Modou doyalul Modou yàgg naa bëri ay adversaire yoo xam ne Modou daan na leen mais doyalul lees de Modou Lo ci moom dafa daje kuuba daanu mais Modou parewul ci moom bu parewul ci moom rek loxo dem gémmeñ booy kayre Modou parewul ci moom kurpan ba xaw a laal nii ci kaw cos bi nii ci wetu daba laa bi kii bi nii bopp bi nii ah moom ci la ci ci ñoom hmm. déglool loolu ma wax Balla Diouf doyalul ci moom mais Balla Diouf a doyal xam nga Modou doyalul mais Balla a doyal <laughs> parce que li tax mu doyal mooy pour nga xam ne ci biir combat am ak Balla Diouf dégg Modou Lo pour nga lu mu def bu baax bi muy bëri ak Balla Diouf Balla Diouf bi Modou Lo xawee rëpp tuuti pour nga xam ne gëmeewu ko xam na ne daanawul mais daa bàyyi bëri a xoolal daa def nii loxo yuuxu ñoom bu ma daanee Modou succès bu ma daanee Modou man mu jëm ak nu may mel loolu rek problème la ci ñoom mm-hmm. succès bu ma ak Modou waxuma la xadar xadar gi ne ci moom ak xarañ gi ak hmm. deewoo gi metti ma ak fii yeeg jom jeeg fulla jeeg fayda ji waaye succès bu ma daanee moodu loolu ñoom sax du gëm boobu duñ ko ëndaale xam nga benn ancien mbër mas na maa nettali ma daa yóbbu benn mbër ci hmm. kilifay mbër ma yóbbu tur bi du ma du ma yóbbu du ma tudd tur bi nee na mu préparé combat bi si te écrit bu mag la nekk préparé ko six mois hmm. mu dem ba dernier butéelam mu laaj mbër mu cëq mbër mi téye ci loxoom dernier ni ko moom fiis mu naa ah, mu ko loo gis te waaji booy baa ngay bëgg waaja mbër baa ngay bëgg bëri mu xool ko ne ko naa jéngu rek baaba nee na ma woon ko ginnaaw ku dem ba dara ñu bitee eh, man la loolu gi naa ko naa jéngu rek nee na ma woon ko ginnaaw wala déggoo na kon moo tax ma la ni Modou Lo heure bu ñëwee ci làmb ji c'est pas que dafa ñëw ci làmb ji bi mais Modou Lo heure bu ñëwee ci làmb ji même boo koy daan. Mm-hmm. même boo koy daan. Mm-hmm. oh boo ko daanee kenn du ko jéppi parce que Modou ba mu dalee daanu ba tey. ay mm-hmm. daanu mel daan rek la fi daanu. yaa daan rek la fi daanu. waay waay ba ko bàyyi la ngay daanee prime. waaye premier combat ba nag ginnaaw bu mu jógee ci Issa Pouye won ko lu mu koy won ñi premier combat mook Balla Gaye lan xañ muudu li ko xañ mooy dara gis nga mu gis nga gis nga euh, buzz il faut wax di ko wax te li ngay wax doon lu leer ci xel nit ñi ak bëti dara xañu ko kombaam ak Balla Gaye de bu njëkk ba lu dul Balla Gaye de da koo sàcc doole ju bari parce que Modou bi muy bëreeg Balla Gaye de du kattan gi moom li bay xamala la lan moo ko booleeg Balla mooy xarañ ak succès mais du doole ja doole ja matewu ko. Mm-hmm. wala déggoo la ma baax. am na te lan moo tax loolu daan ko réussir ci ay nit yoo xamante ni am nañu kattan ak doole Balla Gaye 2. waaw mais doole yi dañoo bokk parce que waaw moom lay andi la Balla Gaye chaque jour buy bëri seen Balla Gaye daa doon boo xam ne dafa xa dafa nangul Modou Balla daa daa xam ne kii daa mën a bëre daa xam ne kii daa ñemee te Balla Gaye 2 chaque jour buy bëri ak Modou Lo li muy indil Modou mooy naa ko ëpp doole ñaari yoon te li ma koy ëpp doole li ma def ci moom kenn mënu ma koo tooy def dama koy dem ak appliqué. Hmm. Balla Gaye 2 moom rek moo nekk mbir moo xam ne heure bu jàkkaarloo Modou te buy appliqué googu muy appliqué da boole am doole te daa gëm li def ci Modou moom moo waral souvent rek Modou du am chance ci moom parce que daf koy ëpp doole ba pare te day ñëw rek appliqué te doo Modou daa doon mbir moo xam ne du samp ñu di combine bëre mooduloo moomul wooy woow nu naan bu lambi ji bu doon lambi jigéen ba ni jeex na nan ci def moyen mooduloo nan ko ci moyen moyen mooduloo ak moyen Balla Gaye bu doon lambi jigéen ba bu doon lambi jigéen sax jeex na nan ci moyen mooduloo moodu bokku ci loolu daa am ñu ko moom du combine bëre ba ko da ball ba mu dalee bëre ba tey premier combat bi loolu moo ci fen Balla Gaye du ko am da ko ëpp doole fuufu ndolle ba pare moodu doon daanaan hmm. moodu doon daanaan moo tax Balla Gaye ñëwee xam ne kii moo ko doole dafa mën a bëre comme Modou te moom daa nangul Modou te xam ne ni Modou dina ko faal moo tax mu yër ko moo tax Balla Gaye gis ko da doon deewoo ji ak Balla moo tax Balla Gaye de ko daf ko gëdd taxaw Modou ko taxaw Modou ko ni mu gis nga te li muy gaaw gaaw gaaw gaaw ko da doon deewoo ak moom mais Balla Gaye mu songee Modou ci ab xeex continuer wu noonu ak parce que daf koo songa xeex ba pare daa di bëre njuuy ko hmm. moo tax ba mu daal di am naqar déedéet Balla daañu yónni xeex ba. Modou samp fa te ko xaar xeex ba pour deewoo ak moom parce que bis baa tolloon noonu Balla Gaye de Modou Lo rek moo am boo xamante ne boobu laay waat bi daa taal dañu taalal leen ma attaaya ndax combat bi. <laughs> combat bu garaawoon bu njëkk ba. waaye kon boutique boutique yëpp tëj yëpp tëj leen. Balla Gaye de rek ko am korona bi ñuy wax nii naan tëdd leen Modou Lo ko fi njëkk def ak Balla Gaye de ñëpp tëju combat boobu njëkk tëj nit hmm, dëgg la Modou Lo dëlee ci naqar ci premier combat ba après wane boppam diggante ma bàyyi ma njool. ba mu fa ba mu fa jógee ci premier combat bi pour nga xam ne Modou Lo ndaanaanu ndaanaan yi la ba mu ci premier combat daa demaat jëlaat ko konkorong parce que Modou Lo bi muy jël bi muy jël bàyyi ma njool boobu bàyyi daan ci làmb ji moo tax sànq ci sama début sama début ma wax la ne la jóge ci defet mais Modou daa doon mbër moo xamante ni ndaanaanu ndaanal macha allah yàlla na ko yàlla dimbali te boo xoolee ba ci biir musul tegale ñaar defet te du tegale ñaar mën na ko bañ a tegale parce que Modou toujours moom li ci ginnaaw boo xoolee li ko yàlla may nii mbër yu a doyal xoolal tey jii mbër yi fi amoon ab bëri yëpp koo gis ma nga biir yor ay lex mu taxaw yor aw taatam di la wëngóori di dem mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. yaa ngi déggoone mais Modou Lo dafa nekk mbër moo xam ne dafa yor jikko Youssou Ndour te loolu képp kuy kii xale sax kuy liggéey même du làmb kase ba nga mooy macha allah Youssou Ndour moom dalee doon Youssou Ndour ba tey nit ñi dana yéemu ci moom rek fekk moom bu amee fukk nit ñi di tudd fukk ya moom ma xool cent nit ñi tudd cent ya ma ngay xool mille mais Modou Lo daa yor jikko jooju Modou Lo dafa doon ko xam ne bi nit ñi naan Modou Modou Modou Modou Modou li ko yàlla ma yëpp ci si Modou xoolu ko Modou day teel dem entraînement doo ko gis mu yor leex doo ko gis mu yor biir doo ko gis mu yor ba pare nag am fulla ci boppam fulla joo xamante ni sii ni xam ni Sénégal bàkkukat ba nee na njugatin nee na Sénégal dañ di niti tey waa Ndakaaru dañ di niti tey dañ la yëkkati ba ci kaw nu mas la nga daanu. ay eh waay tey njugatin laa ubbee sama émission sax de. moo tax kon nag ma fekkaase la ko tamit yëguma ko te Moodu dafa xam loolu xam ne nit ñi am nañ fullay boo melee ni nga war a mel nu jàpp la ba mel ni ku la mënatut a baax nga foofee sa bopp jox leen sa bopp nu foofee la ba nga nu ñu nu bàyyi la fa mel ni mësuñu laa xam. mais Modou dafa jël dignité am ak qualité am ak succès bi ko yàlla may mbër yu bari. bu bëree pare daanu am doguma la parce que dix minutes moo ñu dese. Mm-hmm. mais Médoune Ba dama laa gëj gis ci live bi Ba Médoune Ba maa ngi koy gisaat ci commentaire yi gëj naa gis trop. doguma la ñu ne Modou Lo bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon da koo daan ci quatre appuis am na ñuy bind loolu commentaire yu bari. sama waa ji. Mm-hmm. ndongolo nee na wàcc ma daan naa la wala ku daan da ngay féete dëgg la na solo. wala déggoo naa la bu baax. ñu jóge ci Modou Lo Baye Mandione. dama da dama la wax benn affaire. Mhm. suuf leenu boole woon. man nekkuma fa sax di ko saate. Mhm. suuf leenu boole woon. Mhm. suuf leenu bàyyi moo moo nu tàqale. ku ci ne dan maa sàcc yaa juum. am na solo daan naa la wut ku daan da kaw. mu daanee Baye Mandione ba pare lam ko ci tegal lam ko ci tegal leer na may ma ku ma tëj mbasa mbasa. da ko ni Baye Mandione mu naa mën ko gëmal yàlla. xanaa déggo plateau ba. xam nga la moo ci neex. boobu noonu ah, bu ñoon sama copain la sama gaay la. baabu ñoon sama xarit la. balaa ngay të balaa balaa balaa balaa ngay balaa ngay tëj rek bu bu desee deux minutes nga wax ma ko na joxal la taggu man moom laay tëjee. loo ma doon bëgg a wax ñoon sama waay la sama xarit la man su may euh, su moom mbokk na ci raar mbër yi may déggante téléphone. mais su may joué bële. su may carte su may nga doo nga waaj jël. waa ji jël dara nga dugg ko hmm. boo ko dugalee ba xam ni gañe ko waa ji bu bëtikoo di compter da nga koy naan bàyyi ma ñoon gëm a yàlla wax ma <laughs> waaw yi moom la ñuy waxal. voilà bi bàyyi ma ñoon lan lay woowee. voilà kon ma voilà kon ma di la euh, voilà. tamit uh-huh. CNG tamit yàgg hmm. kase ay verdict mais boobu fale ko ma surafal ko. sama waa ji euh, <laughs> buzz. waaw buzz. Hmm. buzz. laa lay wax ay waxu nit laa lay wax. nee naa la naaru góor yi ti wuñ ci ñeexal ci aw xël leen rawantee mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dëgg la dëgg la dëgg la mais mais ku jëf bar waaw waaw yeggal yeggal foofu waaw la ku jëf ba ku jëf ba ku jëf ba raw la mënoo wax ba dakku dëgg la mais mais Mourtalla euh, waaw lu tax euh, ñaari question laa dese ah, ci Modou Lo ñaar ba ñetti question Euh, yaakaar naa wax nga du tax baa Gaye di daan Modou te junj nga tamit du tax Bombardier daan Modou waaye damay ñëw lu tax Modou Lo ak Lac de Guiers 2 du ko daan ko daan du ay waay ko daan mbasa mbasa Lac de Guiers 2 du daan Modou daan Lac de Guiers 2 lépp luy daan lépp li Balla Gaye di daane Lac de soixante dix pour cent moom la ci Lac de am parce que Lac de moo nekk mbër moo xamante ni 100 pour cent ñooñu duñ daan Modou parce que gëm-gëm duñ gëm seen bopp ak fit du do Lac de bi muy bëreeg Modou Lo indi na doole joo xamante ni si ni mën na cee daan fukki keneen ku dul Modou Lo ñoom bu ñuy entraîné ak ni ngi ray seen bopp ci doole ji rek ci doole ji rek du doole kese moo koy daan Modou da ngay appliqué ba pare ñeme deewoo gi Balla Gaye de combat bi bu passé ni mu bëreeg Modou Lo ku yim bu doon mbër yu bari jëbi hmm. boo ko rootalee doole ba pare da ngay def ni muudu rootalee doole ba pare dangay ngay def ni muudu muudu nan lay def mooy day jàpp ne buy wan ginnaaw parcelle fàtte a ndeyam fàtte na baayam fàtte na ñëpp. Mm-hmm. lu adversaire am bii nii ak jàpp ne tey jii dañ ko war a mën a suul ci biir stade bi biir enceinte bi mu dee ci biir enceinte bi moo ko gën mu muy ñibbi parcelle jox wu leen raaya bi. loolu mooy indi question bu ñu question woon Lac de Guiers 2 lu tax bi nga. woo ko mu ne damay bañ mu mot. bëri na Lac de waaw doo déet xam nga dégg bëri dafa am dafa mbir yoo xam ne dañoo dégg bëri tey jii ma wax la ci benn affaire tuuti saa kër ji muuru dafa yor déggu bi rek yëkkini yëkkini benn bis. waaw loolu mhm. ak Eumeu Sène. Mhm. loolu yaakaar naa waxoon nga mhm. ko sax ci spécial Eumeu Sène bi. Euh, balaa may egg ci spécial moom dama koy tëj ba ma koy eggal ba egg ci spécial dama lay kii gis Lo am na lu ko yàlla da ko ma yeneen xeeti bénéfice parce que bénéfice yi am mooy mentalité bi dafa xam ku ko ñemee ak ko ma ak koo xam ne xam na ni nekk na ci làmb ak ku nekkul ci làmb ji Modou Lo professionnel la nee naa la ab dongo la bu tarbiyu làmb ci ab ci ab potam Modou Lo da ko tarbiyu ba doon ab xa ba doon ci xalifa mm. Modou Lo ci làmb ji bi muy na ko ba xam ne kii nii la diggee ko daan Modou Lo la diggee la diggee dee demal suba nga duggaat YouTube nga xoolaat seen dernier combat bi dem na ba benn moment boo xam ne dafa laal suuf rek sànni ko ci tànk la diggee dee mais la diggee dee mu tuuti mu daaneel waa loos bi Moodu heure bu fuuftandikoo xaaral ma wax la déglu ma Moodu heure bu fuuftandikoo xoolal heure bu fuuftandikoo gëdd booyi non ay waxu nit laa lay wax Moodu am na xadar goo xam ne a ñime goo xamante ni si heure bu fuuftandikoo ba fuuftandiku bu gëddee booy Moodu loo lii dafa yàgg ci Moodu la bi mu bëreeg Cheikh Niang Cheikh Niang daan na waa Sénégal gépp ba daan Pa Sow moomu noonu du ko dóor Kayar ba magam papa ba magam ab Ousa Pa Sow moom man mii maa yóbbuwoon te Modou Lo bi muy bëri ak Cheikh Niang Cheikh Niang dafa daan assurance bu mu dóor ko Bombardier ko góom dóor ko ba nangu ko ci ay loxoom Papa Sow Cheikh Niang du ko dóor ba ba Ousa Sow da ko nangu ndax yaa may dégg wala ma. dóor duun xaaf mu daanu biir puut. dóor duun xaaf mu daanu biir puut làmb jooju Cheikh Niang yaayam maam Boussa moo ñu yar bi muy bëri ak Modou Lo puut euh, fële sa euh, Taïba. Taïba Cheikh Niang ba mu ñëwee ni ma Modou mu laay bëreel Cheikh sama doomu nday la nu ñaanoo yarandoo ma ne ko booy mu naa ma ne ko am nga koom booba Cheikh kenn mënu koo daan pour hmm. nga xam ne Modou gaynde la biir Taïba Cheikh Niang teg na ko fa loo xamante ni sii ni teg ko fa loo xamante ni sii bu ko tegoon cuune rek keroog mu am mais sama dëkkub cosaan la fu ne mën nan ma fay daan waaye du ma fi daan te boobu expérience ja moom la imaam bi boole tudde ko ni mais Moutala tëb na malheureusement mais live bi jeex na gars yi bëgg naa jël nag Moutala mu tàggatoo parce que il nous reste actuellement deux minutes de live tey spécial mu spécial la ñu waxoon tey yaakaar naa on a fait le tour ah on a fait ñu bàyyi Moutala déglu muy tàggatoo Moutala une minute trente moo la desee ma bàyyi la nga tàggatoo parce que wax nga. dama lépp Modou yaakaar naa. dama leen a Modou Lo daa yor fukki minute ak benn yoo xamante ne ni ku ñu mucc ndaanaan nga. tëjal ma ko. bu ci dëkk mooy un bi di nga onk deux bi di dem ba jeex trois bi dina la tëree siiw quatre bi daray karkaral ruq yëpp. cinq bi moom doo cinq parce que foo jaar taq six bi dina ko six ni Modou Lo mooy le roi de géew set bi dina ko setanu lu ko waaye ma si fàtte na ko lu ko Balla Gaye de fàtte na ko ndax comme jàkkaarloo ko mosee nit ñi fàtte nañ ko huit bi da lay wiide ci biir géew bi neuf bi duutoo talanoos yaag say mbokk dix bi dina la teg lu onze bi di ngeen us bu ma yëgal du ma dugg ci Modou wax maa ngi dem ba jàmm. Mourtalla samedi yi léegi yow yaa ko moom samedi yi la koy bàyyi samedi samedi live Mourtalla lay doon. maa ngi nuyu sama doom Modou Dia maa ngi nuyu sama doom maa ngi nuyu sama doom Modou Dia ak caatu Yoof. incha allah sama doom Siteu samedi prochain gën tamit maama Lamine. di ko xam ne ko jàppalee na dëgër. samedi prochain amateur samay xarit ñun ñëpp benn lan. samedi prochain dañuy arrêté. <laughs> dañuy samedi prochain du ñu ñëw ci spécial samedi prochain dañuy commencé décortiquer yi spécial yi dinañ ci ñëwaat mais samedi prochain dañuy décortiquer ñoo far yow amul benn problème samedi prochain décortiquer combat yi taxaw yëpp ak Mourtala incha allah. égale merci beaucoup